lu leer laa leen wax de tey de su may dugg sama kër bu ma àndul ak ay alkaati xam naa ne ami du ma tegal reer ndax li may xar maa ko xam. nazayo mama faya kayo momomo kala kayo omoko taya na na mama saya jo oya ka mama poe toyo nazaya momo fama kaya no somo chaka wane mo saya mo no moro but aya mo kaya caaga yow foo ma kaye see maa ngi dee da jinne ko foofu xanaa ëppal rek da koolu fi nga tege sa tànk di nga dégg bopp jinne da nga ko daanu na ngay maa ngi fi reku Karim Wade manu kamee na yow ah. Karim waxal sa soxla man kamee bi bi nga waxoon hmm. bujuru bujuru hmm. bi ma ko defee la ñuy valider parrainage bi <laughs> wakk naa man du nuyu góor teel sa loxo du nuyu góor nga jox ma la waxal sa nga jugu nga dem. dama wax pour candidature bi parrainage bi jàll na. candidat bi mu am problème de tey naa mën a bokk wala du bokk. da nga bëgg ma kóolóol lool. oui si di nga bokk wala du bokk. oui déedéet bokk wax dëgg lu rek. n'a ka ya nana Karim bu aree ma ko faya ka ne ni Ablaye Wada Karim boo ko yow faya ma mu ma kay. naya zaya ma fata ye noyo koyo fo ma kaya mumba karim naya soyo aya mo mumage aha nako <laughs> wakal jiri dama wake ah, jiri jiri jiri jender wakuma la jiri jender nga wake jiri tugu ah, jiri jiri tukur jiri tukur tukur foofu Bakar Jiri. voilà. mi ngi déglu nag gis nga yow sa problème xam nga lan gis nga yow sa problème xam nga dama la. dama la waxal nga déglu ma. waxul su ma waxee dara yow nga waxul loolu. Ah, waxul loolu su nga noppi nga déglu. di nga jóg nga dem te du amul ndamu yow. naa faa kaay mu ko saa kee kee mu mu wax. loo wax rek ma wax loolu de noppil. nasaye mo faye koyo eh, karim na kaya saye hmm? nagara saye mo fo moma kayaka ko moma kayaka soko ma kafaye momomo seyako nu yakaya fa mama akayene soyo fayama momo kayenana zeaka <laughs> nazaya mama mamore dinga déglu man dinga déglu man su fekkee man dafa waxaat leneen yow nga répété loolu hmm. yow dinga nga jóg di nga dem hmm. est loolu leer na da nga déglu da nga yàkkam di wax da nga wax lii ma binda li nga wax rek ko. loolu nga wax. waa kii ma wax ko. voilà ko wax naa bulu ju. ko wax nee bulu sa papa waxoon na loolu. wax na yow déglul déglul. nee kaya ma fooye ma. nee kaya ma fooye ma. naa zaya ma ma ma kaya fayema. ma kaya yow yow tamit. Naasa aayama fa aayama moo na Karim aayama gën a dama ko tëj sa gémmiñ yow dootul wax. dama ko tëj sa gémmiñ yow tamit doo wax. wa wakalu naa buluju. naa buluju. muluju. muluju. kula buluju. kula buluju. muluju. muluju. kula jiitu. kula jiitu. moola mujju. moola mujju. la ma ko. ah. ah. naa buluju. naa buluju. muluju. muluju. kula buluju. kula buluju. muluju. muluju. kula jiitu. kula jiitu. moola mujju. moola loolu leer na loolu leer na. fi waxal fi. ayca jàppal fi. Naazaya kaay mu fo. ni ma ya kaaya mu fo ma ma kaay Karim wa aya masaya no mu ma kaay. dafa gudu. ma mi ñu ma jinne yi si nga wax loolu salami bi mi ngi danga. waaw voilà ayca Naazaya ma ne yow yow da nga bëgg a wàccu ko. nga génne. nga génne nga defu lépp. nga defu lépp naa zaaya maa koy fayu. naa zaaya ka maa fo koy. naa buluju. naa buluju. muluju. muluju. kula jiitu. kula jiitu. moola bulu kool man kol fële. <laughs> jogal nga dem. jogal nga dem merci. sa aajo fajuna. sa aajo fajuna. voilà acca naa ma koyo. acca naa ma koyo. kaye ke. koyo maa kaye be. ma kɛ saa nɔ mɛ. dafa gudu. buluju. buluju. na buluju. naa buluju. buluju. buluju. kula buluju. kula juutu. ɛ bulujuutu fii de. acca naa faa mɛ.